asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante suñu Boroom wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu jaajëf Seexuna Xaadim di ñaan suñu Boroom fayal di ñaanal baax Seex Mahmadul Muntaqa suñu Boroom yàggal ko fi lool ba lim yéene liggéeyal ko fu kawe ci barke alquran karim kon ginnaaw bu nu sante suñu Boroom noo ngi dikkaat ak yéen ci sunu jataayu jigéen ñi muy émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaat doon jataay boo xam ne noo ngi koy amali fii ci ëttub M-Media Group Nourou Darayni doon jataay boo xam ne jataay fàttalente la waaye jataay bu laayante biir la ngir li alquran karim wax ak li xadis yonente bi sallallahu alihi wa sallam wax jataay la boo xam ne noo ngi ciy wax sunu bokki jigéen ñi waaye di yem ci ñoom ba ci suñ bokki góor yàlla yi ak képp koo xam ne suñ boom tabaraka wa na mu ne ci sag jëriñu mu mel ni jataay bi passé wala yii passé noo ngi woon ci dénkaane boobu nga xam ne Serigne Touba ridwanullah alayhi daf ko dénkoon soxna Penda Diop doon dénkaane boo xam ne jigéen ñi war nañ koo déglu bu baax war nañ koo bàyyi xel war nañ koo jàpp itam waaye di yem sax ci jigéen ñi waaye mboolem góor yàlla yi ko ci suñ boom koo xam ne bëgg ngaa jariñu àddina ak àlaxira ci xam digg-digg lan mooy lu baax ak lan mooy safaanu lu baax nga teg sa tànk ci lu baax waaye bañ a teg sa tànk ci safaanu lu baax incha allah boo ko digloo rek man nga ci jariñoo àddina ak alaxira jataay bii paase nag noo ngi woon ak yéen ci ñaareel bi tomb ci yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Jóob te mooy taqwallah ñu ko waxee ne ko alayki bi sabri wa taqwa rabbika la ci teg taqwa juji nag moom lan doo leeral ana digg digg lan mooy taqwa naka la ci jàmm mën a jariñoo moo xam góor la wala jigéen ñëwoon nañ ba ci dénkaan bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko dénkoon kenn ci euh, taalibe yi kenn ci mag ñi di ko dénk ragal yàlla xamal ku dëgg-dëgg lan mooy njariñal ragal yàlla ñëw nañ ba agsi ba ci fii ko sëñ bi doon wax ne su fekkee ne dama lay fiiral dëgg dëgg ragal yàlla mooy lan mooy nga jëfe ndigalal suñ borom waaye moytu ay tereem waxuma nag ni ko ñenn ji di jorte nga xam ne dañuy nuur ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne iblis iblis daf leen a daf leen a daf leen a wor yal na yàlla nuur ci bàkkaar yu mag yi ba wax ne danoo ragal lëndëmaayu bàmmeel danoo ragal danoo ragal xataayu bàmmeel danoo ragal mbuulam sawara ak i fitnaam danoo ragal mitiitu dee danoo ragal eh, sukuratas dee ànd ak loolu lépp nag ci bàkkaar yu mag yi lu mel ni ki do xool ay jàmbur yu jigéen ak di lu amut ak di jëw ak bari caaxaan lool soo leen waxee ne leen di jëf dafa xaraam ñu leen a ah lii nag kenn mënu ko bàyyi ndax nit ko ànd di ko te soo boole nit ñëpp ànd jëmale sawara moom du ci bëgg bokk te xamul ne loolu muy def euh, dafa xaraam mooy yàlla moom te xamul ne mooy yàlla moom suñu borom daf ko xaraamal suñu borom daf ko daf ko xaraamal anna al maasiyata mamnuatun xaraamun xallat aw jallat mooy yàlla moom dafa xaraam moo xam néew na wala bari te bari gu ko nit ñi di bari di def du ko tax dagan ni mu xaraameen fa suñu borom ci jamono yu jëkk ya noonu la xaraamoon ba léegi si ci sunu jamono ji nga xam ci la nekk waaye nag musiba nag moom ñaari saay bu baree ba matale rek day mel ni bàkkaar dafa doyati boo ko xoolee rek ci jamono ji xam ne ci lañ nit ñi ci seeni waxin ak ci seeni jëfin seeni doxin seeni seeni colin lépp li ci ëpp dafa safaanoo ak ni ko suñu borom tabaaraka wa taala digle waaye nag dem nañ ba faaleetu ko dem nañ ba faaleetuñ ko nga xool colin gu ñaaw wala waxin wu ñaaw wala jëfin wu ñaaw daanaka kenn faletu ko ndax bari goo xam ne bari na nit ñi di ko def ba foo wëlbatiku gis ko loolu daa mel dafa dem ba àgg ci mel ni loolu daal nekkatul bàkkaar wala bu nekkee bàkkaar dafa nekk bàkkaar boo xam ne bàkkaar bu doy la bu doy di la waaye nag lool nekkut na nga xam ne noonu la araame ci jamono yu jëkk ya na ko suñ borom xaraamaleem ci jamono yu jëkk ya noonee la xaraame ci ba ci jamono yii mu joxe ci misaal ne xool nge gis nga jigéen ñi nga xam ne dañuy njaaloo bu ñu sañoon jigéen ñëpp nekk ay kat ngir seen toxtaange googu mu nëbbu wala seen gàcce ga nëbbu joxe ci misaal boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo jeng bu ñu sañoon boroom xam-xam itam daal di jeng ni ñoom wa kazalika al aalimu l jaahiru la yuhibbu l ulama al yi jeng duñu bëgg boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom dañoo jub loolu moom moo am ci sunu jamono ji nga xam ne ci la nekk kon daal mooy yàlla moom na ko sunu borom xaraamaloon ci jamono yu jëkk ya noo nii ci jamono yi nga xam ne ci la nekk ak jamono yi ñëw ne ko ah, xam-xam moom ngëneelal ngëneelal ragal yàlla moom bu fekkee ne ah, waxunu ci lenn wala amul lenn ngërëm lu dul ni li sunu borom wax ci alquran karim hudan lil muttaqina nee na loolu rek doy na sëkk loolu rek doy na sëkk falaw lam yakun fadlul muttaqin illa qawluhu taala hudan leen muttaqin akaana kaafiyan nee na loolu rek bu suñ fekkee ne lool rek la suñ borom wax ca xam ci ci ragal yàlla kon mu doy sëkk sëkk ne ko nag na xam ne ragal yàlla nag moom dafa am ñetti ñetti ñetti daraja ragal yàlla dafa am ñetti daraja comme ni mu nekk ci ima euh, téereb al imaamul yaddi al ibubudi al ibris yàlla yàlla gërëm ko euh, jariñ ko te jariñu nee na daraja bu njëkk ba mooy attawaqi anil azabil muxalladi mooy dara bu daraja bu njëkk ba mooy nga fegu ci mbugalum suñu mbom mbugal ma nga xam ne mbugal moo xam ne mbugal mu sax la muy biir la waaye nag ci sori ci bokkaale suñu boom tabaraka wa taala ñaareel ba mooy nga sori lépp loo xam ne day waral bàkkaar ci nga wax ko wala nga jëf ko ak ba ci bàkkaar yu mag yi nee na loolay sax nag mooy ragal yàlla ci sariya al awalu atawaqi an al azabi al muxalladi bi tabarrui min ashirki wa thaniyatu atajannubu an kulli ma yusimu min min xawlin aw fi'lin xatta saxaira wa huwa taqwa shar'an ñetteel ba mooy nga sori lépp loo xam ne lépp lu lépp loo xam ne day soxlawal sa secret waaw lépp loo xam ne day soxlawal di sa di yàq sa secret anil anil xaqi wa yatabattuli eh, ilayhi bi sarasihi bi sarasirihi Euh, ñette bu mooy nga sori lépp loo xam ne da yàq sa diggante ak sa boroom waaye nag nga torox lu jëm ci suñu borom tabaraka wa taala wa attaqwa alxaqiqu yu nan loolu nag mooy ragal yàlla gi nga xam ne mooy gi gën a gën gi gën a mat nga xam ne ñun ñëpp moom la ni sàkku nee bu jëkk boobee ñetti martaba yu yi mu la waxoon bu jëkk ba mooy li suñu borom ko wa taala di wax ca alquran mooy li suñ boroom subhanahu wa taala di wax ci alquran wa alzamahum kalimata taqwa ñaari bi mooy li suñ di wax ba léegi ci alquran walaw anna ahlal qure amanu wa taqaw ñetteel ba mooy li suñ boroom wax ci ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi nana loolu mooy ñetti daraja yi nga xam ne moom la la wax ne moom la ragal yàlla am nee na ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama attaqwa wa fassaru baadul ulama fa qaala maanahu anna alkarama laa yaxsulu fi lmarhi illa ida kaana taqiyan tajannubu lzubahaati tajannubu lsubuhaati wa yafiru min almahsuraati wa yakunu fihi almakaarimu ddiiniyati wal axlaaqi sunniyati wasiyam lxasanati nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax na ne te di nga digg digg digg mooy ragal yàlla lenn ci waroom xam-xam yi nin ko fiire mooy nee na ragal yàlla mooy maanaam ragal yàlla du nekk mukk ci ascam lu dafa nekk koo xam ne ku ragal yàlla mooy tandiku yi nga xam ne mooy li waaye daw li nga xam ne ay mazuraat la waaye mu dem ba jikko yi nga xam ne mooy makaarimul axlaaq makaarimu diiniya lépp mooy jikko yi nga xam ne moom la moom la lislaam ah, tagg yëpp yëpp dem ba daj ci moom ak jikko yi nga xam ne moom la sunna tagg Euh, mooy jikko yu rafet yi yëpp day jëm ak jikko yu rafet yi jikko yu rafet yi ak euh, jikko yu rafet yi nga xam ne moom la moom la diine tagg yëpp day dem ba day ci moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, doon na dénk jenn waay maa ngi lay dénk nga ragal yàlla ndax fa innahu jimaa kulli xayrin wa alayka bi zikri bi zikrillahi wa tilawatil quran ne ko maa ngi lay dénk ragal yàlla maa lay dénk ragal yàlla ndax ragal yàlla kat boolem yiw yépp mi ngi tënku wala mi ngi dugg ci biir ragal yàlla ak maa ngi lay dénk itam ngay bari luy tudd yàlla ak di jàng alquran ndax fa innahu nuurun laka fil ardi wa dikrun laka fi sama nee ndax tudd yàlla ak di jàng alquran ak leer lay lay doon ñeel la ci kaw asamaan ak yëkkatiku daraje yëkkatiku tur ci kaw ci suuf ci kaw ak ci kaw suuf ci ci suuf ak ci ko asamaan te it nga moytandiku eh, ci saw làmmiñ ci loo xam ne suñ boom tabaraka wa taala gërëm ko wa fas lisaanaka illa min xayrin fa innaka bihi taglibu shaytaan te nga moytandiku saw làmmiñ ngi di ci tudd loo xam ne loo xam ne du du amul amul la njariñ ndax boo ko def ko loolu seytaane daf lay not kon daal ñu xam ne digg digg ragal yàlla ay digg digg jariñu àddina ak àllaaxira dégg dégg mucc àddina ak àllaaxira mooy ragal yàlla ragal yàlla lépp nag boo ko doon tënk mooy ni mu ko waxee rek mooy jëfi ndigal waaye bàyyi tere jëfi ndigalal suñu borom subhanahu sa kemt laayal kàttan sa kemt laayal kàttan waaye mooy tandiku tere suñu borom subhanahu sa kemt laayal loolu mooy digg digg ragal yàlla tënk mooy ngay jéem a jëfi ndigalal suñu borom bi waaye jéem a bàyyi tere suñu loolu mooy ñaareel bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Jóob ci alayki bi sabri wa taqwa rabbiki mel ne soxna yëpp kon war nañ koo digg comme kenn ku doon digg kenn ko doon dénk seen moroomu jigéen la waaye du yem ci jigéen ñi ndax yi mu ko dénk yëpp góor mën na ci jariñu jigéen mën na cee jariñu fii ci góor mën a teg ab tànkam foofu la ci jigéen mën a teg ab tànkam ku ci teg sa tànk ci jëfe la mu wax waaye bañ a teg sa tànk ci jëfe la nga xam ne moom lay tere Eh, suñu boobu mën naa defal ak mucc àddina ak àlaxira kon sunu jataayu tey daa mel boobu lañ ci taxawlu incha allah taala bu ñu ci beneen jataay dikkaat ci ñetteel bi yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa dénk soxna Penda Jóob ci alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal wal jahri fa yaxfir laki incha allah taala beneen jataay bu ñu dikkee nan kunte jëm soom na suñu borom kon dañuy taxawal foofu axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka muhammadin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sa'altu rabbi saraatan qad tutahhiruni minhu ilayya nuurun wa azraaru sa'altu rabbi saraatan qad tuqarribuni ilayya dunya wa ukhra mithla man qaaru أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بعن قد فاق إقراره وبان إذ رافق المختار وحدهما في الضيق نحو معل فيه أنصار إذ أغرجوه بتكسيب وباعدهم muhaajiran li makaanin ardahu daaru baatu bi makrin aziimin xawla marqadihi wal kullu minhum bi suu'in fiihi ammaaru. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey